ji xalif mi nag daal dinay wax ne nañu ko defaraat waaye nag waxuñu kenn def te ku ci def na nga joxe reçu yónni wuñ kenn fenn du borom mbaxane bu weex du borom xaftaan bu weex ku demit yaa demal sa mais kenn yónniwu la ngir liggéey bi ñu tàmbali ko loolu lan ciy message bu am solo la te dafa jot ci taaliba cheikh yi li nga xam ne mooy sunu sakk muy jàkk jii di zawiye bii mhm. ñun danoo war a mën a fexe ba Tiwaawoon boo ko jubee 7 kilomètres yëg ni yaa ngi dugg Tiwaawoon fii dëkku leer la alaaj Malick a fi ne ñun alaaj Malick lañu gëm àjjana ju alaaj Malick nekkul bëgguñu ko alaaj Malick lañu yaakaar bu yabu ñu ne dañuy bokkaaleeg ak ñun xoolal non m'intéresse li italien naan faalewuma ko ñun alaaj Malick lañu bëgg jàkkaam ji mooy sagam zaawiyam bi mooy sagam mais nag sëñ kër Sy Mansour dafa xam sénégalais xam nit ñi xam na leen parce que am na ñoo xam ne buñ ne dañuy defar jàkka ji ñoom ci la ñuy profité ñoom defaru ci. di business daal. waaw mooy da ngay gis Oustaz Modou Fall mu ñu dékk micro mu naan waaw xalifa bi doon na wax ci jàkka ji bu ko defee mbooloo mi lu waaye am ngeen jox ma ko incha allah dana ci jot ñu jox la cent mille. Mhm. nga génn jënd connexion dix mille. Mm. tey quatre-vingt-dix. <laughs> mu des quatre-vingt-dix nga àgg may sa yaay dix mille may sa bu jigéen dix mille. Mm. xaalis yu jàkka ji kat ngay jënde connexion di pasar pasari mais looloo fi bari. Mhm. di laaj sëñ Mansour nee na bari na ñu ko daan jox ordonnance naan ko facture la ñëw ci sëñ Mansour sëñ Mansour moom moom daa tabe ba gaa yi ordonnance lañ koy jox ordonnance buñ bind ay siro sëqët mm. <laughs> ne ko facture la boo ko fayul si Malick ñu coupé kër ga mu génnee deux cent mille joxe mhm. ñëwel noonu nag ba tey ñoo fi ne mooy di dundee kër alaaji Malick te dundaluñu kër alaaji Malick looloo bari ci réew mi mhm. di dundee kër alaaji Malick te dundaloo kër alaaji Malick ñooñu la sëñ Bay Si Mansour xam moo tax mu ne bu kenn laaj laaj loo wuñ kenn mhm, mhm. ku am looy joxe jox ko ña nga ko war a jox dëgg la ñi bokk ca mouvement boobu bokk ca groupe WhatsApp boobu di ko doxal ñëpp leen xam te ñooñu ku leen dénk mbaa nga jox leen wala nga teg ko ci seen loxo dana àgg fa fa nga bëgg mu àgg fa mhm. kon nag lii message bu am solo la na ci mhm. tiijaan yëpp dugg sunu sag la mhm. lii sunu sag la mbooleem kuy taalibe cheikh Tiwaawan mel ni makkatal mukarram sa sag la mais volonté la rek wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah nit nag booy joxe dangay joxe li nga gën a bëgg waaw doo joxantu da ngay joxe Seydina Ousmane mm-hmm. Ousmane Ousmane ibn Affan saxaaba la woon ci saxaaba yonent bi Ousmane xare dafa am jullit ñi amuñu lu ñu xeexee Ousmane laajte ñu ne ko amuñu jaasi amuñu fas amuñu dara te Ousmane un million moo nekk ci comptam un million mm-hmm. Seydina Ousmane laa la wax de un million moo nekk ci kontam te gars yi amaguñu fas amuñu jaasi amuñu dara te war nañoo xare ji ngoon mm-hmm. Ousmane dem wëq compte bi ba compte bi taxawee zero franc mu jox ko Seydouna Muhammad ne ko lépp jëndee ko ay jaasi mm-hmm. ak fas mm-hmm. ñu xeex lislaam am ndam l'islam am ndam Ousmane taxawee zéro franc moo ma gënal Ousmane denc ay millions lislaam ñàkk am ndam allahu akbar ñu mel ni usman bariwul ci jamono bii de gars yi boo leen gars yi bu ñu lay may deux mille denc nañ denc nañ quatre million may deux mil de mille lañ lay jox Ousmane nag daa wëq alalam moom lépp ngir lislaam moo tax keroog di ko yonent bi ne Ousmane loo dese mu ne ko li ma lépp joxe naa ko yonent bi njool màkk daa julli gée di ñaanal Ousmane bañ ni asalaatu xayru minan nawm xam nga lu mu doon yàlla hmm. yàlla maa ngi lay ñaan Ousmane mii gannaaw jëfi tayam ji yàlla bum defati ci àdduna loo koy toppee hmm. bi muy jeexal ñaan gi ci la ko yàlla ni xamalal usmaan ni ko man man yàlla sax dama kaa rus hmm. ne ko am na kër ca aljanna moom Ousmane ndax am na saxaaba yu ñuy tuddee almubashirina bil janna mooy ñi nga xam ne jot nañ seen visa aljanna avant ñuy faatu maanaam di dund yàlla teel laa yónni malaaka ni ko boo demee nee ko àjjana la jëm abubakarin ci la bokk mhm. talxatu ca la bokk zubayru ca la bokk usmaan ibnu affan ca la bokk omar ca la bokk aliyun ca la bokk abubakarin mhm. siddiq ca la bokk ñoom ñëpp bi ñuy dund la yàlla yónnee ci ñoom ne ko eh malaaka bi eh boo demee nee usmaan àjjana am na fa kër day mhm. xaar dee rek pour dugg fa dëgg te ñoom ba leen ko yàlla waxee ci lañ gën a yokk seen jaamu yàlla parce que Aboubacarine moom jot na visa wam ba mu leer ko ni àjjana la jëm te nee na moom gëmul ni sax bu tegee ndeyjooram balaa càmmoon bi di ñëw duñ ko génnee yóbbu ko safara mhm. ñun nag ñoo gën a dal xel li yàlla bind ñun sénégalais mhm. ñun amuñu passeport bay am visa àjjana mais ñoo gën a dal xel ñëpp. dañuy yaakaar rek. léeg nga dégg ku naan ah sëñ bi àttan na lépp sëñ bi boo ko bëggee yan un million quatre cent quatre-vingt-quinze conteneurs ci ay bàkkaar du dem. Mhm. te nag wala taziru waziratun wizra uxra yàlla du jël tiyaabay kenn di ko bakkaaru kenn di ko jox kenn mhm. ku nekk li nga liggéey ngay fayeeku bàmmeel bii boo ci duggee loo fa gis yaa ko jëf mhm. yàlla du jaawale de pour jël jëfi kenn naan dama jaawale joxaat ko non ku ne li nga liggéey ngay fayeeku moo tax lii sunu sag la li ci borom li ci xalifa bi wax nañ ko def dëgg la na ñëpp taxaw am volonté mhm. joxe taxaw ci pour jàkka ji mën a sag mhm. jumaa ji mën a mën a am sag mhm. ndax sagu alaaji mooy bu ñu jóge bu xala bu ñu bu ñu jubee Tiwaawoon yëg ni ñu ngi dugg Tiwaawoon mhm. ah dëgg la bu ñu jubee Tiwaawoon yëg ni ñu ngi dugg Tiwaawoon dëgg la Tiwaawoon dëkku leer la aasa fi ne maam Ilimaan Saaxo mësta dugg Tiwaawoon sol daal buy dugg Tiwaawoon bu jubee Tiwaawoon maraakis yi lay boq di def tànku nen ba ba zawiya alaaji Malick buñ ko ne góor gi naaj wu tàng wi ngay def tànku nen mu ne suuf su alaaji Malick tëdd ku fay sol dàll xamoo Maodo mais ku xam alaaji Malick suuf su mu tëdd doo fa sol dàll parce que alaaji Malick li mu wax dafa rëy de alaaji Malick nee na yowmal xiyaam ñeent may jiitu mais imaginez li yàlla bind lépp Maodo ni ñeent may jiitu maay juróom maay numéro cinq ëllëg moo tax tiijaan yi bu ñu dee set fii ci àdduna ëllëg seen sëriñ cinquième la lay doon alaaji Malick nee na Aboubacar mooy un Omar mooy deux Ousmane mooy trois Aliin mooy quatre ñii la yàllay rappel ubbi aljanna ne leen dugg leen ñu ne ku ca yàllay teg alaaji Malick ni cheikh ay sama sëriñ mooy borom tariixa bi waaye su boobaa yàlla danaan ana Malick faa wadd wele cheikh alhaaji Malick ma ne présent mhm. mu ne ma duggal mais liggéey la fexe na ba réew mi boo jullee timis ba pare di dégg naasaril xaq bil xaq fa nelaw gën a neexee fa la ñuy lalee mbalaan mi ba tax sëñ Babacar ni taalibe cheikh dafa yomb a xàmmee da nga koy xool rek xam ni kii taalibe seex la day man a sañse kanam nga day leer taalibe seex day son day charmante taalibe cheikh day son day charmante day am personnalité day rafet xet ga day neex kurus ga day rafet fala tara min ahlihi abadan illaa wasi maawu fii xusnin wa tazyin oustaz xam nañu ne nag wax dëgg yàlla jël nañu sa waxtu lu bari te ñi la soxla it bari na xam naa dañuy tàggatoo ak yow rek bàyyi la nga dem eh, jox yi sa ay yitte ñu ngi lay